waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokk groupe Arrahma asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi dénk suñu bopp ragal yàlla di ko dénk ñoo ngi di nuyu ci nuyoo ju gën a ci islaam ma bëggoon nag ñu waxtaan tey ci tomb bu jara seetlu la tomb bu am solo moo tax ñu def ci beneen taxaw seetlu ma bëggoon ñu ànd ak mbokk yi ñu partagé euh, waxtaan bi xam ngeen ni li ma bëgg a surtout sax waxtaan mooy di mooy ci wàllu laab laab nag dafa di mbir moo xam ne. bu amul ci jullit daanaka mbiram léppay taxaw rawatina ci wàllu julli julli nag pour mu wér fokk mu ànd ak làpp moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na miftaaxu salaati ak tuhuur am ngeen bunt bu nekk dafa am caabi boppam boo yorul caabi bu bu baax doo mën a ubbi bunt bi nga soxla moo tax julli caabiyam mooy làpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ni inna allah yuhibbu tawaabiina wa yuhibbu mutatahiriin sunu borom dana sopp dana bëgg lool ci ku laab dafa di laable moo tax ma bëggoon nag ñu ñëw ci tomb yooyu ñu weccante xalaat ci mbir moomu wala ñu def ci benn taxaw seetlu mbokk yi jaar nañ fii di waxtaan waxtaan yu am solo surtout bii may bëgg a jël ni xadis bii bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax ni allahuma inni audu bika min alxubathi wal اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حديث بي دفجر أم بن تهو سيدلو وطمع أندي واتكو نخ نبايتي توتي خلق xam nga ni nit ñi léeg-léeg doomu aadama dafa sàggan fii yonent bi sallallahu alayhi wa dafay wax ni balaa ngay dugg douche balaa ngay dugg ci wanag na nga muslu ci seytaane ci lii seytaane yu jigéen yi ak seytaan yu góor ñi balaa nga dugg ci wanag moo bi mu am solo ci jullit bi alhamdulilah ñaan bi nag balaa ngay dugg douche la ngay muslu ci ñaari seytaan yooyu seytaani jigéen yi seytaani ak yu góor yi man nag dama bëgg ñu jàll ci biir ñu jàll ci biir ci biir wanag bi parce foofu mbir yépp fa lay xewe waaw mais pourquoi lu tax ñaan bi lu tax lu tax ñaan bi lenn dong la dafa am ay seytaan yoo xam ne ñoom dafa am rôle walla benn liggéey bu ñuy def te xam nga ni seytaan yi bërëb yi mu bëgg yépp mooy bërëb yu salte Guinée yeeg ñoom it seen place yi ci ëpp ci place su sobe la ñuy dundee loolu ma ñuy dund moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sitru ma baynal jinni wa awraati bani aadam ida daxala ahaduhum xalaa an yaqul bismillah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li nga xam ne mooy dox digganteeg seytaan yi wala jinne yi ak doomu aadama yi bu ñuy dugg ci wanag mooy ñu tàmbalee wax bismillah ndaxte bu ñuy dugg ci wanag wala ci douche du wax bismillah moo tax yonent bi jàngale musul bi musul waaye bi danga ne bismillah allahumma inni audu bika min alxubusi wal xabaay donc lu ñu wutee li yonent bi sallallahu di jàngale fii li ñuy wutee diggante shayatin yi ak doomu aadama wala jullit bi mooy mu wax bismillah waaw lu tax ñuy muslu di wax bismillah lu tax loolu mooy li ma jot wax nii kon cheyt ñoom jinne yi ak cheytaan yi duñu wax bismillah waaw ban rôle ban rôle ñoom la ñuy jouer wala ban rôle lañ am ci loolu lu simple la mooy ñoom wutuñu donc lu dul ñu tàqal la yow jullit bi ñu tàqal la xam nga di ma laaj naka la seytaan di la tàqal booy dugg ci douche xam nga ni seytaane buggul jullit bi jege boromam bugg na jullit bi sore boromam kon looloo tax muy bëgg mu muy bañ di fàttaliku suñu borom rôlam yëpp mooy nu jullit bi tarxiise léegi naka la koy defee ni mu koy defee bari na lool am na ay anam yu bare ci biir boo duggee ci biir wanag bi naka la koy defee bare na benn imaar booy tuur ndox mu fexe ndox bi li nga tuur dellu ci yow walla ngay siital li nga boo tuuree ndox mu ne si def sa kaw yaram wala sa yére sax tàkk sobe moo tax jullit bi muy muslu seytaane ci loolu naka noonu gisoo booy jàng quraan suñu boroom nee na na nga muslu seytaane fa idaa quraan فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بوي جانغ القران نغموس الشيطان بيه بس كيموم سنون لا دول ديفول دارا لودول ياكل ياكل ndax nga nek ci sobe te xam nga bo nekk ci sobe manam sa julli léegi nag li jullit bi war a def mooy moytandiku lépp lépp lépp luy sobe lépp lu koy tàqal lépp lu koy tilmal moo tax muy muslu balaa muy dugg ci biir wanag alhamdulilah léegi mbokk yi léegi ñoo ngi ci biir toilette bi ñoo ngi ci biir léegi ci douche bi léegi naka la ñuy def pour moytandiku tàqu tàqu sobe yooyu li nga xam ne seytaane la muy def pour tàqal la naka la def pour moytandi ko xam nga boo duggee bu nit ki duggee ci biir douche war na seet naka lay toogee naka lay taxawee ñaari façon chaise moo am bu dee su dëkk taax yi nii comme dëkk yi chaise anglaise wala chaise turque bu fekkee yow góor gi da nga ñëw dugg ci dugg ci toilette bi nga bëgg a tuur ndox maanaam nga bëgg saw ah, nga taxaw di saw boo musluwul seytaane balaa ngaa dugg seytaan dina fexe taqal la noonu jël sobe boobu taqal la ko te yow doo ci bàyyi xel naka la ko defee mooy boo sawee booy tuur ndox muy tiis dellu sa kaw yére dellu si sa yaram loolu benn lu benn ci taqal yi wala boog ngay tuur ndox pare rek soteeku génn dem jàpp yi ndeke fi ngay jàppee saw bi desoon seen naq boobu des sa bi yaram muy wàcc ndànk ndànk ndànk ci sa tubéy kon nga dëkk ci loolu nekk ci ay at mun ngaa nekk ci loolu plus de cent ans sa julli du wér ndaxte yaa ngi nekk ci sobe léegi nag ngay def boo duggee ba taxaw di saw yëkkatil sa tuba yi ci suufu pantalon bi nga yëkkati woñ ko oñ ko ba mu yëg ci kaw bu ko defee nga tuur ndox ba pare nga jóg taxaw ni nga taxawee noonu wàcc toog jógaat toog raxasu taxaw diir te lu mu bon bon taxaw la une minute wala deux minutes téye saakar gi toog tuuti gis na booy def benn pression ak sa loxo gauche wax ma loxo droite yoon yoon sam day tere utiliser loxo droite def euh, sa loxo gauche def benepresion pression touti comme raccord la rek té raccord day denc ndox boy beus touti rek paan nga paan def ko force di nga gis touti ndox mi genn parce que ndox saw bi da des dess sa bir yaram kon yow bi julit bi da ngay sàmmoon tek lolu nga def ben pression bu ndaw nga sukkuleeri jog taxawat bo mënee sax dox touti ci bir douche bi dox def ben aller ben pas aller retour ndox bi di wacc nank nank nga sukk jogat def defaat même pression mu guen dafa melni rek ben racole boo branché ci robinet di duy benn barigo bo xass bo paré bo débrancher racole bi dem ben benn ndox buy des ci biir racole bi moo tax boo juutalee racole wala nga bës racole bi nga gis ndox mi guen même chose la ci góor buy tuur ndox kon dina jaadu gymnastique boobu nga di ko def waaye ñun surtout rawatina sénégalais day yàkkamte dugg rek génn si douche bi looloon def dama doon saw wala sëñ bi may ma rek damay dugg damay saw saw rek laay def saw damay saw rek du ma yàgg dugg rek génn pare ci ñëw raxasu ndekke ne ndox baa ngi toq ci biir tubayam wala nga sàggan lool bàyyi xel sa yére fekk sa am na fu mu laal loolu nag mooy li nga xam ne seytaan moom la la koy def ndaxte muslu woo ci moom mu tàqal la waaw bu dee nag da nga ñëw toog ci chaise bi toog nga pare nga saw pare nga tuur ndox bul yàkkamti toogal nga toog diir une minute deux minutes nga bàyyi mu siit bu baax nga jóg def benn pression tuuti ci sexe bi ci awra bi def benn pression sa loxo gauche Euh, ndox mi génn nga jógaat toog taxaw jóg toog taxaw ndox mi nekkoon ci ba nga yëg ni lépp génn na boo yëgee lépp génn na nga doog a raxasu alhamdulilah boo raxasoo ba noppi yëg nga ni lépp dañ na ci yow lu ko moy danga nekk ci sobe loolu parce que lu tax bi ngay dugg douche waxloo bismillah allahuma inna audu bika min al si walla xabaayis loolu nag seytaan ci lay profité moo tax nit ñu bare bu ñu duggee douche muy góor jigéen yëpp benn la dañuy yàqamte wala def fa noo xam ne bàyyi fa seen seen seen seen seen euh, seen seen neefere yooyu seen saleté yooyu bàyyi ko ci douche bi noonu de ce fait léegi du ñu sotti ndox génn douche bi tilim seytaane bi nag ah ñoom loolu ma leen dundal keneen ku fay jaar nag du ci bàyyi xel moom it defaat même chose mu siit ci kawam tàq ci kawam walla seytaane moom lañ kon yii ay manque de civisme dafa nekk ci doomu aadama surtout sénégalais moo ci raw ngeen baal ma nag bu dee jigéen la nag naka lay def bu dee chaise anglaise la toog bu xasee ba toog bu tuuree ndox ba noppi balaa mooy tuur ndox la yëkkati sërëm aj ko ba ci ndigg bi takk ko ba mu dëgër moytu na ko nag mu yëre yi laal fenn tuur ndox toog fa diir parce que jigéen yombul sawam yombul mu toog fa diir ba pare jóg xam nga buy jóg bu deful ndànk mun naa euh, tuur ci tànk yi mun naa am luy jaar ci diggante tànk yi loolu nag jigéen ñi ba dañ koy sàggane moo tax boo defee noonu pare na jël ndox raxasu bu baax jóg toogaat ba pare bàyyi diir ba mu yëg ni ndox bi nekkoon ci moom saw bi génn complètement euh, bu fekkee ne dafa toog ci chaise turque maanaam dafa jonkoon xam nga nit ñi tàmm di gis gis nga ci àll bi da ngay gis benn jigéen euh, saf saf saw ndaw rek jonkoñ rek saw noonu ci mbedd bi noonu yëkkati ay sërëm mais noonu muy def noonu day tiis ci tànk bi même chose la bu nekkee ci biir wanag bi ci chaise turque am na nu muy sawee lépp day tiis ci tànk bi waaye jigéen duñ ci bàyyi xel bu ñu paree rek ñëw rek jàpp te loolu booy jóg war nga raxas sa tànk ba mu set nga toog tuuti bàyyi mu wàcc ndox mi siit bu baax nga raxasu jóg toog raxasu ba mu set ba doog a pour pour japp li nak le shaytan di la tàqal nii la la cheytaan di la tàqalee ci bir douche parce que bi ngay dugg gané nga wax baña ñaan ñaan bi wala mun nga ñaan sax dugg euh, euh, bàyyew ci xel bu baax noo tax jullit bi fu muy toog fu ne environnement am yëpp dafa war a xool naka lay fay toogee waaw moo tax même suñu borom def ñuy day bëgg yére bu ñuy sol na set na laab wa siyaabaka fa taxir waaw wa siyaabaka fa taxir waaw yére moom dañ koy laabal dañ set waaw ñu xooleen léegi jigéen boo xam ne moom jigéen yi di sol seen tubéy pantalon yi bu leen fekkee fen walla feneen foo xam ne euh, du ñu nekk à l'aise pour wàccee seen tubéy foofu tamit dañ cee war a bàyyi xel booy bu ñuy tuur ndox dangay ngay wàccee sa tubéy ba mu tolloog sa oom ba mu wàcc nga tuur ndox saw normal bu ko defee nga raxasu xaar ba nga yëg ni ndox mi génn nga doog génn toilette yi nag mbokk yi nii la seytaan yi def di la taxal boo musluwul ci moom balaa nga dugg ci wanag lu ko mooy euh, sa julli du wér du baax su borom euh, yonent bi sallallahu alayhi wax ni laa tuqbalu salaatu بغير طهور waaw min baal julli kenn julli du wér lu dul da nga ànd ak laab waaw gis nga jullit moitié genn wàllu ngëmam yépp mooy laab waaw yoon bi sa sa moo ko wax ak tuxur chatrul iman waaw laab mooy ngeen wàllu ngëm bu amul lekk sa jaamu yàlla yépp mooy mooy tàkk suuf mooy am jafe-jafe kon mbokk yi laab dafa am solo ci jullit bi moo tax lii mane woon ñu waxtaane ko euh, parce que jullit ñi dañoo sàggane wet boobu ci wàllu làpp surtout rawatina bu ñu nekkee ci douche bi ñaan bi lu mat a seetlu la lu matt bàyyi xel la kon alhamdulilah mbokk ñu yemali fii xëy na su yeneen jotaay ñu ñëw ci walla ñu jàll ci leneen alhamdulillah nasalullah subhanahu an yuwaffiqana littibaai sunnati nabiyina wa shafiina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullah